cere ju neex mooy plat bi nga xamante ne soxna yi tey boobu la ñuy taajal seeni njaboot mu nekk ab lekk bi nga xamante ne askan wi tàmm nañ ko lool ci bésu Tamxarit bi ba tax na jaaykat cere yi ñoom dañ ci kontaan lool ndaxte seen jaay day dox bu baax a baax. ko lan yàgg a rek waaw defar jënd suñu dugub jënd suñu mboq defar ñu lan yàgg defar cere ñu ñëw di ñu commande ah ñu commande bari nañ moom. ah damay defar di jaay bëri na <laughs> kon calculé wu ma de dama jël liste la lu ma jël lu ma jël damay jël à peu loo xamante ne mun naa ko defar. ay soxna ñu fekk ci ah, bërëb jaayukaay cere yooyu jot nañu rafetlu bu baax a baax neexaay cere bu ñuy jënd. cere laa jënd si wut si waaw waaw euh, tamxarit bi rek chaque année fii laa koy jënde waaw saa yi ma fi soxlaa tam kere pour kër gi rek fii laa koy jëndee def na ay at nag maa ngi jënd kere si moom. kere gi daal moom dafa neex. parce que c'est pas la première fois pour ma jënd fi cere. dama jënd si cere waaw fii laa jëndee cere. koñ bi fii moo ñuy jaay cere. chaque événement sa day jaay cere chaque jour day jaay cere. yokkute bu ñu nemmeeku si njëg yi jur na ay gàllankoor si jaaykat cere yi le. bagage yëpp a seer yenn saa yi nga jaay ba pare doo jot li nga li nga fere woon. te bëri ko dugub boo koy jënd 40 000 juróom-ñetti junne nga koy jënd bari ko mboq. fan yi yëpp ñu ngi jaay sax kilo téeméer ak fukki dërëm kilo kilo juróom-ñeent fukki dërëm dugub moom seer na seer na seer boo xamante ne moom dem na ba moto ma yokk pot bi waaw dama ko dagg 100 francs la waaye dama ko wàññi foo ko wàññi doo ci am dara cere mu nekk ab plat bi nga xamante ne boobu la ñuy gën a servir ci fettu tamxarit ba tax na defar ko nekk na lu jafe lool ndaxte njëg yi dañoo cher